suuf jël na maam moor ki kenn dul gën xanaa koko gën mooy ngeen gi mindeef sëriñ ba wax dana ko waxaat bokk yi gannaaw ba nu leen nuyoo siyaare leen noo ngi teew jataay boo xam ne bu kàddul ji bu sax ku xool rek xam li ñuy waajal muy ndigal lu bàyyi ko ci kër xaadimu rasul cheikh Mouhamadul Mountakha am na cheikh Mouhamadul Bachir mi toog a jotaayu xaadimu rasool yàlla na fi yàgg loolu te wér. ndigal li tàbbi ci kër maam Mor moom soxna jaara fekk fi xalifaam bu tedd bii na ci biir kër gi sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay bóor ñëpp di ko ñaanal yàgg ak wér. mu jot ndigal loolu def nam daan def yëkkati ndigal li teg ko ci loxol njaboot gi. sëriñ Cheikh Mbacke xalifa sëñ Ismaïla Mbacke moom maam Mor soxna jaara mi ngi nii toog. feggoo ak seti Maam Mor Jaara yëpp ñu fas yéene waajal bés boo xam ne mooy bés bi sëñ Mudu Moustapha Mbàkke waxoon ne bu ñu jagalee kër borom saam rek adduna jag loolu la ñuy waajal kañ lay doon àllarba fukki fan ak juróom ci kori wi war a tombeeg le 19 juin fii ci Mbàkke xewar loolu nag moo tax seen Cheikh Ismaïla Mbàkke mi ànd ak njaboot gi ci ndigalul sëriñ Abdoulahi Mbàkke yàllaay bóor tànn délégation boo xam ne ñoo ñu xamal waajtaayu bés bi ak programme bi incha allahu taala. muy bis bi nga xam ne moom la ñu baaxoo fàttaliku ku baax muy mamoor jaare Diarra borom Cham magi mag bis boobu nag ren dafa tombe ak euh, àllarba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ñu koy amalee fii ci Mbàkke Xewar euh, di ci woo bokki jullit yëpp di ci woo bokki taalibi yëpp sëriñ bi nee na képp koo xam ne bokk naa ak yow maharam wala mu bokk yow sëriñ bu soobee wala ko képp koo xamante ni sa maam dafa àndoon seexul xadim ba am ngërëmam sëriñ bi nee na ñi ngi lay woo ci bis bi te di la ko fàttali képp koy wax asadu an laa ilaha illa allah ngi lay fàttali bis bi ndax euh, yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci département Mbacké di ko mooy Mamadou Lamine Mané ak sëriñ bi nee mi ngi leen di fàttali di seen tax taxawaay di woo tam ministre Dame Diop mi nga xamante ne bii doomi doomi région bi la sëriñ bi nee na mi ngi koy soññ ci bis bi di ko woo di woo euh, président parlement CEDEAO muy Moustapha Cissé Lo moom itam di doomam di xaritam sëriñ bi nee na mi ngi koy soññ ci bis bi di ko woo di woo le maire de la commune sëriñ Abdou Mbacké Ndaw di doomam di jarbaatam sëriñ bi nee na mi ngi koy woo ci bis bi di woo tam directeur SOSIP muy Galoba boobu itam ñu ngi koy sant bu baax a baax ci turu njaboot gi ci turu sëriñ bi ci jëfam ju yàgg def ci bi sëriñ bi nee na mi ngi koy woo ci bis bi te di ko fàttali di woo itam euh, euh, muy sëriñ Aramine Mbakke moom itam taxawaayam ci bis bi ñëpp gis xam nañu ko mi ngi woo itam euh, honorable ajaratu Nende Ndiaye mook borom këram monsieur Mbaye sëriñ bi nee na ngi leen di woo ci bis bi te leen ci soññ di woo itam soxna Fatma Diop moom itam di député mi ngi koy woo ci bis bi te di ko soññ di ko soññ ci taxawaayam yu rafet yi nga xam ne moom laa taxaw ci bis bi di woo itam sëriñ Abdoulahan Mbakke Gaynde Fatma di doomam di jarbaatam di ku bëgg kër gi te yàgg cee taxaw moom itam nee na mi ngi koy soññ te di ko woo ci bis bi di woo itam le maire de la commune de Touba Serigne Abdoul Ahad Ka mi ngi koy soññ ci bis di ko ci woo di woo Serigne Mor Ndiaye ko ci soññ moom itam bu baax a baax ak euh, honorable Maguette Diakhaté bi nee na mi ngi koy woo di ko soññ bu baax a baax di woo ay doomam moom itam ñoo xam ne ci kër gi lañu ñu bokk muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Bara Doli ak Serigne Cheikh Abdou Mbacke moom Serigne Bara Doli Serigne bi nee na mi ngi leen di woo ci bis bi te di leen ci soññ mu ngi woo itam doomam di jarbaatam muy Serigne Fallou Mbacke Galas Kaltoom moom itam Serigne bi nee na mi ngi koy soññ ci bis bi te di ko woo mi ngi woo tam Silla Mouhamadou Silla di nekk con euh, au conseil bi nee na mi ci woo moom itam di ko soññ bu baax a baax di woo itam Abdou Lahad Seck Sadaga moom itam di député sëriñ bi nee na koy soññ bi ci yàgg mi rafet yi nga xam ne moom la daan ak professeur Lamine Fall mi nga xamante bi moo fi bokk na ci ñi nekkal euh, parti démocratique sénégalais moom itam sëriñ bi nee na mi ngi di ko woo ak euh, Lamine Lamine Sarr di doomi Mbàkke moom itam sëriñ bi nee na mi ngi koy soññ bu baax baax di ko ci woo ak di woo itam doomam uh, di jaarale woote bii muy bëgg a woo muy le maire de la commune de Thiès muy Talla Sylla di ko jaarale ci doomam sëriñ Saliou Bousso mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi nee na ko ci woo di woo mboolem autorité administrative yi nekk ci réew mi yëpp bu ñu demee ñi ñu gën a kawe sëriñ ci ñëw waaye ne képp wax asadu an laa ilaha na mi am solo boo xam ne danañ ko ci amal conférence boobu nag ren Ibrahima Fall Babul Mouridine sëriñ bi nee ñi nga xam ne ñoo sëtu ci Maam Mor Jaara ñëpp ñi ngi ciy woo képp koo xamante ne bii ab daay reb sël la ak fu mën a nekk ci yoonu murit ak fu mën a nekk ci bi rek ñi ngi lay soñ ci bis boobu altine lay doon euh, juin fii lañ koy defee tam ci penc Mbàkke xewar ci bu 20 heures jotee incha allahu taala sëriñ Sam Bousso Abdourahman mooy ki nga xam ne mooy def waxtaan wi ñi ngi soñ bokki julli yëpp di ñaan képp ku fi teew yàlla nga daje gërëmu sëriñ Tuubaa ak Maam Mor Jaara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki julli di bokki gannaaw nuyoo ak ndokkeel ak siyaar noo ngi fàttali bis boo xam ne xam ne sa fàttiwu leen ko waaye wa zakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniin sëñ bi wax ne nag lim jiital ci bis bi mu gën ko cay ñor moo di alxuraanul karim ndax ne borom bis bi meeloon ci alxuraan ndax alxuraan moo doon dundam ki nga xam ne moo daa accordeel kaang yi ñu door a nangu ne ay kaang lañu di accordeel fóor yi ñu door nangu ne ay borom xam-xam lañu kon kooku bisam alxuraan na ci war a jiitu war caa mujj war caa ne ci digg ba moo tax alxuraan jooju mi soñ ñim daa soñ ñëpp naka jekk ñi daa jiite al njàng mooy njabootu sëñ Mor ca bopp ba waa kër sëñ Bàll yoon yi ko nekkal fii di woo mboolem daari alxuraan yëpp ci Sénégal mboolem daari kaamil yi fu waay a nekk lu man ci njàng alxuraan nañ ci jàppale def ko xaddi Mamour Diarra suñ mënee xam lim ba itam euh, bokk na ci lañ ci gënal Eh, mel nag jot nañ ko layta laltaayal laltaay bu am solo ndax bisu biir bi nga xam ne sëñ Fallou moo ko joxoon muy ñaar fukki fan ak juróom benn ci koor gi jàpp ngoon ñaar fukki juróom ñaar sëti Mamour Diar ci kër gi jàng fi lu toll ci 386 kaymil ñetti téeméeri kaymil ak juróom-ñett fukki juróom benn eh, jot nañ ko jàng laltaayu ko bis bi waajale ko ko waaye bu ko defee nag la ca des nag mooy mooy mottali kon ñu ngi ci wax alxuraan eh, daari alxuraan yëpp su ko defee bis boobu bi sëñ Murtala doon wax it muy bis bi sët war a daje ngir eh, am def bis bi ñuy waajal bis bi muy bis sët yi def conférence bi eh, thème bi ñu fàttali ne mooy al iradatu al iradatu wal xidmatu maanaam ak taalibe ak liggéeyal yàlla thème boobu incha allah moom la sëñ Sam Bousso war a waxtaan incha allah ci ci bis ñu ngi ci woo ñëpp di ci seenu ñëpp kon ñu fàttali bis ba mooy eh, àllarba la 21 juin waaye dëppoo fukki fan juróom ci kor gi waaye bisu conférence ba war a nekk incha allah altine euh, la 14 wala 17 la 17 le 17 juin incha allah ñu ngi ci woo ñëpp di seen yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di nuyu ci tuuru Serigne bi ak ki nga xam ne mooy jawriñu liggéey bi muy Serigne Cheikhouna di woo mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo daan ànd di liggéeyal Serigne bi muy daayira yi dëkk Mbàkke góor ak jigéen ak fu daayira mën a nekk ci biir Mbàkke Bawol sëñ bi mu ngi lay woo. nee na mi ngi woo daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi fukki région yi ak ñeent bàyyiwul benn daayira fu fa nekk rek sëñ bi ngi lay soñ ci liggéey bi di la woo ci liggéey bi di woo tamit daayira yi nekk Europe bàyyiwul fenn ci Europe fu daayira nekk ci Europe rek sëñ bi mi ngi lay woo di woo tamit daayira yi nekk États-Unis ak yi nekk Afrique ak yi nekk Asie fépp fu daayira Mame jaar a nekk ci àdduna bi rek sëñ bi mi ngi lay woo di la soñ ci liggéey bi mi ngi woo tamit ñi nga xam ne ñoom la bokkal dëkk bi muy fukki penc yi nekk Mbàkke te mu yëpp di penc Mame Mor Diarra bàyyiwul benn penc mu ngi leen di woo di leen soññ ci bis bi di leen woo tamit ci mbale mi nga xam ne war nañ koo def dëkk bi ñu war koo def dimanche di sës li 13 juin dañu war daje fii ñu setal dëkk bi nee na mi ngi ciy soññ waa dëkk bi yëpp bàyyiwul kenn nee na mi ngi soññ tamit waa Missira rawatina maire Missira ñu ngi koy woo ci bés bi ci gis nañ taxawaayam lépp ñu ngi ko ciy sant di ko ci woo di ko ci soññ mi ngi woo tamit Serigne Modou Mbacke Baara Dolli mi ngi woo tamit Moustapha Diop bu daas bu ministre de la ci taxawaayam ci kër gi ak ci liggéey bi sëñ bi daal bàyyiwul kenn ñu ngi soññ ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bi ñu jiitalee sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Xaadimu Rasul. di njukkalit maam Mor moom soxna jaara ah, ci ndigalu sëriñ Abdoulahi Mbacke yàlla buur ginnaaw bi mu ñu yabalee ñu demal ko ci Cheikh Mamadou Mountakha ba ñu demee ba yëgal ko sëriñ Mountakha itam mu xamal ñu ne neen ko na ci ñëpp gën a jàpp te gën koo dëgëral gën koo fulaal ñu ànd ci ñun ñëpp ànd ci sëriñ Touba ak sëriñ Mor soxna jaara jàpp ci bis ba bis ba mel na war a mel. sëriñ bi door ko woo njaboot gi xamal ñu ne ñu nañ ko taxawal kon te waxtaane ko boobaag léegi ñu di ci defi waxtaan sëriñ bi nag ne mi ngi ciy woo mbokk yëpp lu mu bokkal maam Balla Aysa lu mu Maaram ak lu mu bokkal sëñ Buso bi ak mbokk yëpp suñ mbokki njataraak ñëpp sëriñ bi nee na mu ngi ci leen mi ngi leen di woo bawut kenn ndax dañoo wax ne kulim juum déedéet doo juum waaye danga nga matal ginnaaw yàlla daf ñoo booleek ñëpp nag boole kook ñëpp te boole woon sëñ moor ak ñëpp suy woote mi ngi wooteel sëñ moor ñëpp la koy la koy wool mboolem jullit yi ak sax ñi dut jullit tey bëgga tur sëñ moor kon sëriñ bi nee na mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn ah di woo it njiitu réew mi muy président de la république ak ay ministre am ak mboolem ñi nga xamante ne bi séq na ko ak ñoom di woo itam parti politique yi ndax ñoom ñëpp ay njabootama ci nekk kon sëriñ bi nee na ñëpp lay woo bi muy woo ñëpp itam yàlla sama borom dogal na ween wi mu yor day jaaxaan ngir ñëpp mën koo bokk kon nag ñëpp lay woo waar ak euh, opposition mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn kenn ku mu doon ku nekk nag noo ko déggee nii rek xamal ne saw tur la lañ ci jublu lu mu gàtt gàtt ak lu mu gudd gudd rek na ñëpp maase ci xam ne sëriñ bi daal woo na leen bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ñëpp la woo ngir ñu dikk teewle ko ci bis bi. bis bi nag bisub yokkute la kenn ku bëgg a yokk àdduna bëgg a yokk alaxira daal da ngay jàpp bis bi fonk ko def ko muy sa bis. sëriñ bi nee na mi ngi wëlbatiku ñii nga xam ne ñoom la bokkal bis bi muy doomam yi ak rakkam yi di leen woo ñoom ñëpp ngir bëgg ñu fulaal bis bii ak taalibe yi ndax kat amuñu lu dul bis bii te nuñ ko jàppee rek taalibe yi jàppale ñu ko noonu jàmbur yit jàppale ñu ko noonu bis boo ko amee mu toll ni bis yëpp wala boog mu mag bis yëpp da ko war a fonk te jàpp ko waaye doo ko bàyyi nee ndax kat fi mu ne nii kenn ku nekk am na say taalibe yuy bàyyikoo fii màggal gu jot ñu yaakaar ne waruñ caa mën a ñàkk a dem te duñ fonk ñu màggal gu borom saam gii te dara taxul lu yow ma nga xam ne yow lañ yaakaar duñ la gis ci bisu borom saam bii ku la ku gisut sa kilifa nag ci dara da ngay jàpp ne dara joojo du farata te ñun nag suñ farata jëpp mooy borom saam nit ki su fekkonte ne bii ki nga xam ne bu amul woon doo am ki nga xamante ne bii suñ la dee tudd jëmmam a tax lépp loo am lu nekk war ko waroo ko jombale kon buñ jombale suñ jëmm yi ak suñ alal yi ak suñ coono yi buñ ko jombale borom saam sëriñ bi nee na bis bi daal kenn kum doon ku nekk ci ñun na ko def muy soxlaam def ko muy itteem ni nga xamante ne bii lu mënta ñàkk ci moom daal na ni def bis bi mu mu doon lu lu lu mënta ñàkk ci moom. loolu daal la sëriñ bi santoon nee nañ ko wax ci turu sëriñ Cheikh mii nga xam ne nag mooy suñu kilifa te nekk suñu ginnaaw toog kon sëriñ bi nee na mboolem nag njabootu borom saam ñëpp a ngi fi. kenn ku nekk xalifaam teew si na fi wala mu sàkk ku ko fi teewal taalib yu mag itam teew si nañ fi kon nag nu ñu fi bokkee teew nañ ko fi bokkee teewee ci lépp ànd ci liggéey bi ba liggéey bi mat li mu war a matee sëriñ bi ne mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwul kenn jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi bokk yi dégg ngeen kàddu yi bàyyi koo ci kilifa yi nu xam ne kon sëñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur yàlla na fi yàgg te wér defaat na la mag ña daan def jote ci kilifaam dajale njaboot gi jox leen ko njaboot gi waxtaane ko xamal nu niñ ko war a defee kon nag bés bi incha allahu taala mooy màggalug maam Mor ba moom soxna jaara noo ngi séentu ñëpp di xam le ne ñaari bés la yu am solo altine ji la sét yi ràbb mbub moo xam ne wala ñaw mbub mu rafet moo xam ne ci la ñuy xamee ne xam nañu li ñuy def ndax mbubum iraada ak xidma ku ko solal Cheikh Ibrahima mu Babul Mouridina la ngay def làmbatu ko altine lay doon le 17 incha allahu taala àllarba ji di màggal gi moom itam le 19 ñu wax ne programme bi xëy jàng alxuraan ni ko sëñ Mor xam si dina waxee yendoo jàng it berndeel gan ñi tatagal leen ba tàkkusaan ñu daje def euh, conférence kii bi cérémonie officielle ginnaaw tàkkusaan fii ci Mbàkke Xewar